yàgg mataara ngi mooy arbitre combat bi arbitre yaa ngi taxaw ndeysaan xoolal jokkel jokkel a ngonguy sotte ko la ilaha illallah waa Leewtoo dañoo bari ñoom waa Leewtoo tey ma la ni wayal way sama day xoolal Leewtoo dafa doon mbéy gerte gi ñor kene wayo nde lewoto tegal deño tacum deymal aɗa lewoto deymal e ndewayal ku benn um bi waaye yàgg maar nañu naa ñëpp yàgg yàgg jokkee la ngir di takk ndeysaan lii moo tudd naan ci tubaab dëggantaan lii moo tudd <laughs> babs lii daal benn sunu bi day ci suuf waaw ñoom ñaar ñëpp dañ rappel ku ne la ngay takk sa morom ma ngi koy takk waaw doy na mun a njàq waaw est-ce que bokkuñu sëriñ ay séeréer de xam naa ne moom lañ. mën naa ne de. ñoom ñaar ñëpp séeréer lañu de. waaw te keroog ca ca face to face bi. ca 2S. mel ne dañu làngoon. waa ji kay ay séeréer moom laal nañ ci. dëggantaan. maama ngoongoy daw ak ndaala. maama ak ñàkk sa. waaye maama Lamine ak Jokkel waaye lii du yomb. hee ñaari mbër yii. maama Lamine ak Jokkel. Jokkel a ngoongu wane ginnaaw. am na lu ñu koy jox am na lu ñuy jox jokkeel xool per Max Mbargane ndaysaan ñaari mbër yaa ngonguy ñëw jël ma maama Lamine maama ngongook ndaam waa maama loo yenu maama tontuuma ndaysaan noo gisee maama Lamine ak jokkeel pare waaye jokkeel nag daa mel ni mu ngi ci lamba ji de. Ah. waaw. tekkaaral bee ma ci jaaxal de. waaw tekkaaral am na waaye nag daa mel ni ni ma ko gisoon 2STV ak ni ma ko gisa tey daa mel ni lu combat biy gën a dem muy gën a ne ci biir daa mel ni psychologiquement. waaw daa am lu muy imposé maama Lamine. di ko tey ci Thiel mag du ay nelaw de. Thiel la Thiel wax la Lamine. ah Thiel wax la. maama Lamine est-ce que ni mu daan bëree la war a bëree combat bi. déedéet. jeexal ci une minute. non non kii da ko war a. maanaam waru ko jox cëru ba du moom mais na ko jox cëru xam ne mbër bu mag la lu muy def na wóor bég naa ci bu mu làmbatu bég na ci yow maa la gën a bég kenn du yow yow soo bëggee ma bég ku ma xool ci yow mere ma man mii ku ma xool ci yow ba ma léegi jeex de kee baa ngi noonu ànd ak doomu ndeyam dem ba xarañ loo drapeau am la ñuy bëre ndeysaan sunu ëllëg la drapeau bi tudd yàgg maar ci Leewtoo TV lay amee ndaysaan ñu ngi leen di présenté tey la premier décembre 2019 Fallou Ndiaye ñu fi woo Matar Diouf ay arbitre daa mel nii Jokkel ak Mama Lamine waaye lamb ju yàggoon na yoon yàgg mar lay jeex na tey lu waay doon jaay day lamb tey wasin ba dem tool yee yàgg mar Mama Lamine à droite yàgg mar Jokkel à leen di seet passé visite yàgg yàgg lamb ji ba ñu koy wax ak tey yàgg na yàgg maar yàgg maar lamb ji bañ koy wax yàgg na yàgg maar yàgg nañu koy wax maa ngi nuyu Birino bu 2STV le meilleur caméraman kenn du Birino mooy sa chef yàgg nangu nga. waaw ku la ku njëkk ci nekk bu la moo lay wax fi ngay bu la nee toogal fii toogal Babacar amin mama ngay cappi cappi mama ngay cappi cappi eh ndeysaan naa ñëpp képp kuy suivre Leewtoo TV maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow maar yaa nga ca waaye nuyu na waa Liberté 4 waa kër yàgg maar maa leen nuyu képp kuy suivre Leewtoo bëgg la tey la dimanche premier décembre Matar ngay wax ak ñoom ay waay Matar Diouf ay arbitré combat bi Jokkel bi muy mujj a defet la mujj a yóbbaale maama Lamine mujj ci ki kii ñetteel yoon a ngi muy dugg Lamsaar moom Jokkel maama nee na ko tey ngay génn dootoo fa dugg arbitre baa ngi leen di laaj eh avertissement maama Lamine daa am lu mu xëppee ndaysaan Youssou Ndoye nuyu naa ko l'international sama rakk jooju sama xarit di nuyu sunu yaay Penda Diawara waaye mbay guy gi bulu soobak ma solal rafet na macha nuyu naa la mama nga ñaan jiital pied gauche mama ngay jokkee la ngay ñaan yàgg maar ñaari mbër ngoo nga mama jiital pied gauche jokkeel pied ndaysaan bu leen jaawale lii de loolu lay bañ Abdoulaye Mbaye ca états ni sama soppe boobu nuyu naa ko saan ñu ngay lewaatoo lu mu bëgg a def moom Jokkel dem taxaw ndaysaan ñaari mbër yaa ngay lewtoo maamaa ngi dox ci koom maamaa ngi dox ci koom ndànk Jokkel daw na jël ko maama dóor ko ee Jokkel jokkeel sa tukku ba bu baaxul maama taa dajeeg moom génne ko xeex maama nga ko topp rek ndeysaan eh maama Lamine a ngi nii tarkindaa bi d'Artagnan door na ko jokkeel moyul xeex mbaa door mu daanu du fi am ca kaw maama taa bëgg a da koy daan da koy daan daan ko away ah duñu benn duñu benn